soobee koo gën ah pisas man de ko waxoon de sama bët bii mayu ma ko ma ko mama ah macha allah laf ca rek léegi loolu ngi def yéen nii maa de na dal 5 heures du matin nañ ñu yow topp dem buntu bu ñu laal rek mu bañ te yaa ngi ni tabaski baa ngi ay rab yi de buntu bu ñu laal gis nañu dañoo ndox nii ba suñu talon yi jeex. Oh. tey rab yu bon see boo ñu sarxee ñaari kilo compte ak casque téeméer rek. ak rond mm-hmm. ak lu rouge. Mm-hmm. waaye bu leen xeeb leen 100 francs fukki dërëm ñaar dërëm bu leen ko xeeb. 5000 bu leen ko xeeb. gis nga man 5000 laa tàmbaree di door di di di jënd samay bagage di jaayaat di jënd samay bagage di jaayaat macha allah bu ma dem banque lebal ma xaalis bu bëri bu weex tàll. may dem Maroc di ñëw gis nga boutique bii ngay gis sama mag laa ko tuddee Sénogoy Ndiaye en face hôpital si Kambaaw te loo si xamul man am naa di diplomatique damay dem Amérique bi dem fu nekk di ñëw ah, waaw waaw yow man man état bi sax daf maa reconnaître xam nga yoretuma léegi seen numéro voyage yi moo tax ay Amérique ah, ay fu ne laay dem si àddina ah, yoruma seen numéro da ko fiy bàyyi aduna gaaw soppeeku da ngeen ko fi baye waaye yaa mën a fàtte suñuy numéro nii ma leen xam nga rek moy lool ko doyna wa dé de baax na acca salam si salaamaaleykum maaleykum salam ñu wax ak client yi am ay client di ñu wax ak client yi ñu ngi mën ngeen dem mën dem après na ma ay faram lañ mu bañ wala ay jëkkëram kii gis nga de place baa ngi xam nga fi soxna mu nekk fi di xam nga rek dóor waar quoi comme toogaay baaxul. Ah, ok ok mais ah, fii de yaatu na moom lu ne xaj na fi de macha allah. gis nga de mu ngi nii xam tey arrivage bees mooy soog a ñëw sax moo tax place bi xaw a jaxasoo nii xam nga. mu ngi noonu daal dóor waar rek moo wóor. amin amin amin donc moom moo fi nekk sax bu soxna si nekkul bon bi moo fi nekk. baax na wax ji rafet. bi nga ne kii mooy. waaw ah, bu soxna si génnee moom moo fiy xaar moom moo ko fiy xaar. kii de nee na sëñ bi place bi moo ko moom ñu ne suñ toggee suñ neex ak yow suñu moral pour mu ràng ràngañu si bagage bi jox ñu mën moo ñu fi bàyyi woon bu ma rey. waaw loolu la fi wax de ma na moo ko moom ci banque la dem ñu jox ko xaalis bu takku muy dem ay Paris ay Maroc ak Dubaï nee na bañ na ko ba état bi da koo ko passeport diplomatique naka yow fopp nga fi nekkee. <laughs> yow la état bi donc daf leen fi woon pour ngeen ñëw mu jox leen ci bagage yi ngeen jaay. waaw marchand ambulant. ok merci mën ngeen dem. mais nag ñu wutal liggéey de. kii moom bu yoboo ngeen bind seen kii tax taxam dama koy daax. ah kon Seri ñu ngi lay xaar si grand place bi. bu leen ma ko wax xaar. pompe bi nag ñu lay bi. yow nga xamante ne dox rek ngeen di def dox ngeen ba seen daal lay booy toogal. may wax arrivage bu bees buy soog a ñëw dàll yi kenn solo bu ko may wax nga jël ko teg la ay tànk di tiitaru quoi. dama doon wane kii bi. modèle bu bes la dañ koy ki arrivage bi dama dougal pip bi. boy gis nga classe yi dañoo fees del dell ci dekk bi fi bëri boy ngay gis ñu yor ay kat kat di dawal ci koñ yi fii nii di jël ci booy yi moomuñu ko ay mécanicien lañ ñom ñep ñom ñep ay auto yu ñu leen di jox ñu war ko defar ñu wër dina ñom ñoko mom moy mooy classe gi tok ñoo ñuy jox ay kër fi ni ngay gis ku tabax këram bu mu yegg bañ bañ koo joxee balaa ñu koy yàq dem tukki woo benn gardien mu ñëw di ko gérer kook mooy toog foofu di naan moom moom moom kër gi di si nax ay nit dafa bari si dëkk bi quoi jikko jooju jikko jikko boobu la kii yor nag gis nga kii man wóoluwuma ko ci place bi daañ ma lu tax non dama xam ni ko fen bi mu fen nii naan ay copine moom moom moom fii moo géré fii ñoo ñooy dem am problème ci mbedd mi xoolal ñëw fii di ko leb xaalis muy am rëy bañ a bañ da nga wo sa xarit pour dóor len pour wax len len ya mo place parce que yow bo daan ñëw sa rek ti sen nga daan sol suma defé li sen sak la rek boy am nga jëkër am naa jëkkër kañ ba am ñaari doom ah d'accord accord awa ak da dara amé ok mais bo amulon jëkër ma may la sama ben copain ba dara géey Espagne eh dama doon délirer ni rek xam nga rek di la teg xel da amu ben jëkër bu nga Badara Badara Gueye Espagne ma may la waaw yow Badara ba tay na ko yow xam nga grand Aziz Ndela grand bu baax sax immeuble ci Dakar yëpp moo ko moom te Aziz sax soo ci loo ci xamoon daa takk takk suuf de. yaa wax lii mooy takk suuf la takk. nga ne nogay nag neexut a takkal ñaareel de. Euh, booy wóor ma Aziz delloo sa téléphone. Eh, eh eh moo bàyyi li ngay def ah, yow eh, eh, moo Aziz de eh bàyyi li ngay def. waaw duñ li ngeen di def nag Aziz fi ne nii day yow yow tamit. Aziz xam nga ne amul benn jot. boobu xam nga yow stress da lay teg xel ngay déliré nii di def ay feem ay façon waxi dof rek. ngay wax wax ni ay feem la. ah kan kañ fi ne nii moom Aziz xamaluma ko dara de may kii rek man dama fi mu ne nii usine meew moom bu ne woon suukar suukar naa ko ba saf sàpp di séddale damay meew garaati. dama bañ ngeen dàq ma xam nga liggéey bi daa neex tamit bu ma sosee ngeen di kontaan may toog. Hmm. man mi ngay gis nii actuellement dama pare pour toog Sénégal pour investir liggéey yow Diop yow nit nga yow lan moo sama yoon ci Badou sama yoon nekku ci moom man xam nga laa lijjanti yow laa lijjanti moom mu toog mu dem lijjantiwuma loolu. yow kon moo tax yow ngay kër sa téléphone di ma woo depuis boobu ba tey ndax lan pour sama diggante man ak yow. léegi xale jigéen ni Sénégal moom nee nañ yee say appartement la moo mari moo naafaa moo chien loolu nag doom day jug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 ma ne ko nag am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur am nga ñu ñun te dinañ la fajal say bu mu gàcce waaw lu fi lu ko metti woon man mii maay ki koy faj allo. xam nga ki lay woo. man la Mia. Zeyna Zeyna nit dafay neex a waxal nit dafay neex a waxal quoi surtout ku nitee. Zina lii waruma lako proposer ngay nek fi di yuxu di tëb dal ba ba nit ñi di la dégg pour lan ya mëna sutural sa bop ah. xam nga fuma lay wowe ma ngi fi ci digg dakaro ñay tay yow xam nga man xam naa. maag yow du yom man dina jema sutural sama bop parce que tamit suma sutura bu fi xawé ko du kenn ku ko mëna défarat lu koy yak nak dama koy moytu mais yow yow bu fekkee mën nga ci mom dara yow xol noy def bu mu delu mais pa nga nan dañuy continuer dañuy dund man ak yow ci kanam mu ñuy xol xam nga sama doomu nay nga te man ak yow dañu yàgg té gëm na né suma ma fi Sénégal ma tok di gis ci sama wette तुम्हारा गलदारा yow lan la xamoo lan la fi bouger te lan la sama yaay sax sa yaay mais man sa copine la man